li nga xam ne papa instant bi bokk na si làmb loolu nag li koy confirmer le 10 lay doon incha allah bi man dama dëkk ci gox boo xam ne dama fi nekk ak samay nawle waaye yàlla mooy xool lu ko neex mu jox ko doomu aadama te li li yàlla di joxe man dama koy nangul doomu adama parce que moom moo ko jox doomu aadama bi man mayu ma sama bopp te su ma doon may sama bopp kenn du ma pële tey gunaas gi ma dëkk billaahi wallaahi taala su ma toppee woon làmb bàyyi nañ ma waaye dañoo bokk ndey bokk bàyyi. parce que dañoo bokk ndey bokk baay ma sekk ak waa ko ñëpp jàmm barke alxuraan aw ma sens interdit gunaas fenn lu ma xewle dañuy ñëw moo xam bànneex la moo xam naqar la te damaa dem ba xam ne man ñii toppeetuñ ma làmb parce que làmb léegi en général koo gis mbër bu daanoo daanuwaat sax booy dem stade benn nit ngay yóbbu xam a ñaata billet laa jënd ñeenti bologu billet laa jënd. yaa ngi dégg ñeent bologu biyee lañ jënd suma adversaire xam naa ko bu baax xam naa ko mbëru lan la waaw loolu loolu loolu lépp amul problème laa mu moom soo xoolee bu fekkee tey jii nii saison bi yëpp huit cent combats moo am sept cent combats yëpp tànk moo koy daan. non non parce que parce que parce que loolu man mënu ma ko gëm combat bi dama see gis ay jàppale yoo xam ne ay doomaadama yoo xam ne billaahi wallaahi wal kitaabi dañ may woo naan ma maa ngi bërëg nangam sa adversaire nan la tudd ma ne leen diw la tudd billaahi wallaahi taalaay waaw combat bi waaw combat bi nag combat bi muy suma parce que li tax loolu mooy man dama jël combat bi lundi mardi mercredi mu génn àdduna te dañoo waxtaan dimanche ma ko diw ak diw ñoo war a bëre waaye ku daan ak ku daan yëpp suñ ma ko joxee damay jël wan ko wan ko ñoom ñaar seeni combat mu ne ma xawma lu yàlla di def waaw bu la yàlla dimbalee ñii sax doo seen morom parce que dama doon bëre sama seize nii di mën nañ ma seede li mu wax nag moom ko gën a xam moom sama kilifa la bi yàlla dogalee Ada Fass daan Bébé Bismi Fallou Ndiaye woo ma ne ma Bébé laa waxal d'accord na combat ma ne ko amul problème ma ñëw na ko kii laay bëreel mu ne damay ñaan yàlla suñu borom lafal la cat dàqal la seytaane waaye bu yàlla defee jàmm rek ngeen bëre kii yaa mu am kàddu bu ma dénk boo xam ne moom laa ñëwee stade te loolu boobu ba léegi moom laa gëm te moom laa nekk muy soo waajur bu góor loolu mu ma wax ci laa nekk boobu ba léegi un an six mois mu si ñu daw parce que combat bi le 19 avril daaw la waroon am yàlla dogal ak pexem ndogal ñëw si réew mi. ñu santee ko yàlla nekk suñu bopp bàyyiwuñ benn yoon di daw guddeeg bëccëg suba ngoon. moo tax ma ne la bés bi bëre moom laa koy bëreel parce que li tax ñoom ñaar kenn ku si nekk da nga sori si man rawatina suma papa tey bu doon lu ma gënal dafiy nekk ba keroog may am limaam parce que dafa sonn ci man tey yombul nga am tey jii nii waajuru góor. nga nekk si naqar mu bàyyi léppam jël ay matériel am sonn ci daw ba dee tey génn ma nekk ci yoon boo xam ne tey dama war a nekk ci yoon pour war tekk pour dimbali ko suñu borom ko yóbbu ko waaye loolu koy sante yàlla suñu borom parce que ko joxoon moo ko yóbbuwaat tey su ma amoon lu ma ko parce que dafa daj ci man ay coono yoo xam ne man xam naa ne amul benn doomam boo xam ne daj na ci moom coono bu mel noonu kon waroon naa reyanti maximum teral ko moom avant muy génn àdduna waaye yàlla suñu borom moo dogalee noonu ay mbiram mu nekk loo xam ne tey ji nii sas la si man boo xam ne si kàttanu yàlla ak mbaaxam le 10 estat ba bis maanaam mu tëral ma rendi ma ak paak moo gën a yomb mu daan ma. papa bi. incha allahu rabi. keroog signature sant sama soxna. bi ndax daa nga ko sant mais xam nga la moo war a loolu. tey moom dafa bàyyi ñëpp jàpp papa. te jigéen dañ ne boo nekkee ak moom da nga koy sagal di wane ne carrément am nga foo ko teg. donte moom xam na ko waaye am na ñu ñuy déglu ñoo xam ne dañoo war a xam ne kat jëkkëram ji am na fu mu ko teg te am na fu ma ko teg moom te moom loolu xamal na ko boppam may gis ni muy sonnee samay mbër tey bu sañoon papa heure bu bëree day daan li muy dégg ak li li xam ne da koy naqari te jugewul ci moom jugewul ci man ci yàlla lay juge loolu la nit ñi mënul comprendre te ndéegee yorul ndam su amoon lu ko gën a bu demee bëri heure bu bëri jee damay daan man yoruma ndam su ma sañoon heure bëri damay daan waaye yàlla dogalam jàmbi ak waaye maa ngi ñaan yàlla ak mbaaxam di ñaan kilifa diine yi nga xam ñoo nekk si àdduna bi yëpp ñu ñaanal ma yàlla ma daan Bébé Bismi jël bu rëy bu benn werante te si kàttanu yàlla ak mbaaxam xanaa mu bañ a ñëw waaye bu ko yàlla dimbalee mu ñëw estat ci kàttanu yàlla man li nga xam ne man moom laa gëm nekk ci di si daw un an et fu mu taxaw ma fekk ko fa su xeexee ma duma ko su bëree ma daan incha allah xorabi. ay jëji. moom daa ndoxum siti am yaram Bismi. danga na dafa entraîné ba os loolu nga wax dafa ndoxum siti Bébé Bismi état boobu moom la bëree premier combat troisième combat man mu ngi fekk cent mètres bi ñu bëree troisième yaakaar naa moo boobu man mu ma fekk rëbës bi may bëree sama huitième combat moom moo bëree spécial bi moom ndongoloo boobu moo nekk sama premier boobu ba léegi Bébé Bismi musul dépassé noonu man Bébé Bismi man su ma ëppee doole si làmb ma bàyyi bëri barki Serigne Abdoul Karim Mbacke moom loolu bu ay nit di wax ay kosam di ko sax moom dina xam dañ koy nax moom su ëppee doole si laam li ma baay bëri moom na na def kémtulaay kàttam mu jéem a jàpp si gàllaaj moom incha allahu rabi laa la wax incha allahu rabi yàlla moo yor ndam man yoruma ko mais incha allahu rabi laa la wax bu ma simee koo estat bu ñu nee Baye Mandiaye dugal ci kii bu ma simee koo estat bu ma ko dina xam kii parewul pour daanu moom da nga jàpp ne galaaj rek la am ci mais xam nga làmb dañ ne mbër boo koy jël da am sens boo koy ëppee soit nga ëpp ko doole wala nga ëpp ko fit wala nga wala nga gën ko. Bébé Bis man mënu ma doole mënu gën a ñeme mënu ma dàq xeex ñaan nag man maay sant yàlla aw ma ko aw ma galaaj maay sant yàlla maay sant yàlla bu baax. waaw mais ku bindoon itam ñu tëggee la ñaari bor man yàlla su fekkee daf ma dimbali ma am sama tur boo xam ne man maa ko reyandi ak sama bopp. deux mille ma fi woon loolu tey mu naa lépp ñam ma sante ko yàlla bu baax du nuyu tamit waa Camp du nuyu waa 100 mètres waa dixième ñëpp maa ngi nuyu gaa yëpp Baye Fall yëpp maa ngi leen di nuyu surtout Cheikh Diop Koutal Kéré Ndiaye Moussa Ndiaye xayra maa ngi siyaar gaa yëpp di leen ñaan suñu borom dafa leen jàmm bañ dellu si waat seen njaboot bu dul woon loolu tey yàlla mun na dogal lii bañ am tey ma génn tamit yàlla dogal ma am soxna soo xam ne tey ci àdduna yëpp xam nañ loolu dolliwaat dolli kuwaat suma kaw kon loolu mooy waral tey da ngay gis mbër moo xam ne day xaw a def nii sax mais bu ñu nee Papa Boy Djiné ngay bëri koy teg si yoon loolu mënul ñàkk. ñii du ñuy kase man Gunaas laa juddoo fii laa yoroo fii laa màggee man Gunaas laa juddoo fii laa yoroo fii laa moo xam notaire moo xam Gunaas moo xam tey ay see yi nga xam ne ñoo ñu wër muy ay see wàll daan ay see màgg daan Gunaas ceddo ñetti mbaar moom si réew ba ci Lamine Sarr gonay tey ba darkase amul tey benn ay see boo xam ne nit mu fa fay yeewoo te xamoo Papa Boy Djiné ma dawal seet ba bàyyi dawal seet lang kaa rapide ba bàyyi lang kaa rapide xam lu bari ci Sénégal xam lu bari si àdduna Bébé Bismi moom moo la gën a xam ne sa Papa Boy Djiné du ragal seetaan naa ko nag ci open presse mu ne man daf mu ne man naa yaru nee daf may jox daf may conseil pour ma yaru bu amee conseil bi muy jox na ko jox boppam ak ay mbokkam. signature ba ma saako ko suñ dajaatee si làmb bu ma ko waxaatee ma saaw ko ci kàttanu yàlla xam nga lu tax àdduna Sénégal il faut que ñuy am lu ñuy comprendre si doomu aadama Bour Gueweul tey ma tëbee tëb rek dóor ko nañ xool lan moo war a Papa tëb dóor ko loolu mooy àdduna am na yenn wax yoo xam ne nit bu la ko waxee far la force da nga wax li nekk sa xol loolu dinaa ko garder pour man bañ jëflante ba pare est-ce que dégg nga fi ma wax si signature bi suma ma ko waxaatee na ma àdduna yëpp dégg su ma ko waxaatee ma saagawaat ko parce que foofu lañ toll noo loolu pour man la. géew bi a régler moo tax ma wax la lool ci kàttanu yàlla ak mbaaxam bu ñu ko jëflantee ba pare après moom dina comprendre mais ay non ay yaroog ay saag ak c'est-à-dire non bul bul jéem a sax indi ci détail boobu bu fekkee billaahi wallaahi dama ne billaahi wallaahi wal kitaabi mooy li ma ko scientifique bi bi may fekk 100 wax ji jeex bi may fekk 100 man may nekk Sambour 12 boo tax ma fekk li ma la wax Malick man na ma seede jour dama daan bàcc séeraat bu Grand Yoff daan limaamu bu Grand Yoff si même jour. Malick Thiandoum mu ngi foon tee seede mun na ma seede Maxime Mbargane mun na ma seede Adja Biteye mun na ma seede ndax ñu woon ci làmb jooju avant deux jours làmb moom la rentrée fekk ma foofu nekk douze li ma moo tax ma saaga ko non non li ma moo tax ma saaga ko li tax ma saaga ko bëre waalee loolu loolu du ko bëre waale parce que waaw parce que waaw léegi loolu nit booy wax ci booy wax ñu lay seetaan dañuy war a xam dëgg la si parce que yàlla laay dund ak yonent bi ak Serigne Touba ak kilifa diine yu baax yi nga xam ñoo nekk ci réew mi man damaa direct dëgg laa xam xaw ma leneen du ay làmb bëgg lu neex nit man góoma loolu su ma neexee dund lu ma neex parce que maa moom sama bopp li gën a rëy saaga ndey mu ngi ci internet bi te gaa yi ñu ngi koy dund mais doomu aadama am na lu muy wax dañuy dem xool ji lan moo waral mu wax loolu. doomu aadama dafa am lu muy def ñu dem xool ji lan moo war a mu loolu waaye ñun ñi ngi sant yàlla parce que ñun suñu làmb duñ ci xaar kenn man suma ma lépp jabar la encore une fois di sant képp koo xam ne yaa ngi may jàppale ngir jëmmam moom maa ngi koy sant bu baax parce que man yàlla daf ma dimbalee man li ma am ci làmb bëri na samay moo bu ñu ko amoon ci làmb dañuy sant te ngi leen di ñaanal ñu am lu ëpp loolu parce que gis naa tey mbëri yu ma dëkkal coono yi ñuy daj fi amee combat di dajale seen i weccet di di dem di ketti ji lu nekk ñu dugg si man yàlla dimbali ma maa ngi koy def waaye tegu ma ko sax ñu ma koy defal parce que yàlla daf may dimbali man damay xëy damay dem di taxale di rey di reyanteel sama bopp di jënd sama xar di yar di jaayaat di jënd samay nag di yar di jaayaat su ma amee combat di def di def li ma si war def sama jabar def si li ma si war def ñu koy jàppale def si li ñu si war a def kon moom maa ngi koy sant mention spéciale sama soxna Ndeye Gueye di sant Mame Boye Diao bu baax Mame Boye Diao aw maa ngi koy sant bu baax daf may taxaw bu baax a baax a baax a baax war na Cheikh Ibrahima Fall xam nga nit da nga nangu li ko yàlla defal moo ma gën palmarès parce que ku bëre 19 combats am 14 victoire moo ma gën palmarès daanu ma kenn man waaye incha allahu rabi laa wax man waxuma ay waxu caaxaan de te waxuma ay waxu sëriñ moom li muy wax lépp génn wàll si sëriñ la ko teg maa ko gën a suur maa ko gën a fere sama yaram a gën a baax yaramam. teguma ko si ay gàllaaj ay sëriñ ak yaakaar déedéet entraînement wóor laa def li sama xel ma def ko dox si combat bi pendant des années ba léegi nii ma loolu laa gëm. moom champion la def nga 14 victoires am 5 défaites lu tax nga jël ma. bi combat nan dey la combat bi combat bi combat nan dey la dañuy yoole rek def suñu poche Papa Boy Djiné suy bëre événement la li tax muy nekk événement mooy nan dañuy jóg. parce que dafa am lu ma séq ak ñoom dund ak ñoom rawatina Baye Fall yi góor yàlla yi war na Cheikh Ibrahima Fall di nuyu mbër yu mag yi nekk géej yëpp lu dalee ci Balla gay 2 ba ci suuf mooy sama waxu dem mooy sama waxu tey su ma amee pour wax ni dëgg dama koy wax dëgg waaye je beaucoup de respect ci géej géejawaay yëpp parce que man loolu lañ ma yaree Balla Gaye mooy suñu champion mënuñoo am lu ko sut mënuñoo am lu ko ëpp la Lac de Guiers 2 mooy suñu champion mënuñoo am lu ko mënuñoo am lu ko sut Alioune Seye numéro 2 Sakes guy gi parce que ñoom ñooy ay tête yoo xam ne tey bu ñu respecté géej waaye ñoom ñoo tax nit ñi nekk seen keppaar ñu ngi leen di ñaanal suñu borom defee leen jàmm dara ñaanal Balla Gaye 2 yàlla may ko ndam ci combat bi mu jëm moom Bombardier di ko ñaanal guy gi di ko ñaanal mbiru géej waaye xam ñoo am combat di ko ñaanal sama bopp tamit su ma ñu ñëw ak ma bañ ñëw ñoom ñooy suñuy kilifa ñoom ñoo ñu jiite parce que ñoom ñooy mbër yi gën rëy fii géejawaay sama bopp laa gëm li ma bëgg a doon maa koy def sama bopp man li ma bëgg doon maa koy def sama bopp Balla suma mag la Lac de suma mag la guy gi suma mag la Saké suma mag la te jox naa leen cër boobu waaye man sama bopp laay dund sama bopp laa gëm parce que li may doon maa koy def sama bopp li may li may tàggatoo sant su may xarit guddi bëccëg ngoon xam ne deful dara si làmb nekk ay xale yoo xam tey ji nii ku si nekk da ngaa yor su liggéey dem liggéey mais lum guddi guddi dañuy toog suñu kër ba fajar ñu soo liggéey bu baax du ko gërëm si combat dafa bàyyi liggéey bi mu yàqoo 19 avril daaw ba léegi dafa bàyyi lépp ñu topp si combat di si daw di si daw di si daw di si daw di si daw ba bis moom mënul comprendre sax moom xamul dara. du comme barki alxuraanul karim moom andrul dara moom balaa muy xam ne balaa muy xam ne làmb ji coono mooy fay la diis si kàttanu yàlla doon na ay ku dàq ku dàq ku ëpp doole ku ñaan nanga no yàlla na yàlla may ndam man du ma ñaan loolu yàlla na yàlla fay xol yi rek yàlla bu fay xol ak coono yi suñu borom moom dinañ xam kuy daan waaye xam naa ne bu fekkee coono la rek ak jël sa xaalis si làmb billaahi wallaahi dama koy daan incha allahu rabi li may def si làmb du ko si def moyens yi may génne di ko def si làmb moom du ko def si làmb billaahi wallaahi wal kitaabi saal yi may dem di fay xaalis di entraîne du fa dem néew ma amu ko de am na ko mais Dakar nay si boppam parce que bu ko nayloon si boppam état am boobu noonu pendant huit ans dina ko dépassé yàlla dëgg la bëgg di sant ñëpp di gërëm ñëpp. di nuyu tamit sama am di yi di woo gaa yëpp si làmb ji mafia bi ñëpp mafia bu ndaw bi. dafa feebar borom maa ngi koy ñaan borom may ko jàmm may ko wér di sant suma président Mamour Mamour note sama turandoo kii mooy jënd bu ndaw mooy sama turandoo dénk naa leen ko nag yéen presse bi ñëpp igri jëf soo ko nekk la nekk. di ñaanal tamit sama mbokk yi nga xam ne tey jii sama mbok jolof-jolof yëpp na waa Gunaas waa Roubaix maa ngi leen di woo si combat bu baax ñu def mobilisation bu am doole. mafia Bawol bi la Bawol maa ngi koy teg si jogo convoi beeg ñëpp waa lycée Limamou Laye maa leen di woo si combat bi ñoom ñëpp waa Bagdad waa Ñetti Mbar waa station Touré maa leen di woo si combat bi Baye Fall yi Kafe ga maa leen di woo si combat bi terminis garage Kalandoo waa Jaxaay waa Kër Massar yëpp maa leen di woo si combat parce que man dama bëri ay nit waa ginnaaw raay xam nga waa jaama gën yëpp maa leen di woo si combat di sant di gërëm ñëpp